Eh, mbokk mi dafay laaj nee na daal dafa dégg ñu wax ne shafa ak witar su fekkente ni daf la faat ni ki da nga biddanti eh, yàlla dogal bi nga yeewoo fekk jant bi fenk eh, tabaarakallaahu léegi shafa ak witar googu bu dee ci sharia dañ lay wax ne doo ko fay mais mu ne mu dégg ci e, tariqa Cheikh na Tijaan yi ñu wax ni danga koy fay mu bëggoon a xam daal loolu ci ban téere la nekk ci téere tariqa bi tabaarakallahu ci gàttal rek daañu la yebal ci téere bu ñuy wax fakihatu tullaab bu Cheikh Sidi Xaaji Malik Si radiallahu taala anhu faakiha euh, moom laa téye nii ci sama loxo Cheikh Sidi Hadji Malick dafa wax ne euh, su fekkee ne da nga ñëw ci nusxa bi nga xamante ni maanaam nii la mel ndax euh, yi ñu ko bindee bari na waaye boo jëlee nusxa bi soo ñëwee ci page onze da ko gis سرين بني من فاته الشفع كذاك الوتر يقضيهما كما حكاه الحبر نقول نعم لكم شخص اللي حاجة مالي سواحي من من فاته كم, كم فات الشفع شفع دينغ كذا كنيكي نوني يتم فات الوتر وتر يقضيهما دنالين فاي كما حكاه كم نمكنت الحبر fóore ba te moo di Cheikhuna Tijaan yi kon boo demee ci jawahirul maani mu nga fa Cheikhuna Tijaan yi wax ne képp koo xam ne nee na ab jullit nga shafa ak witar bu la faatee danga koy fay kon foofu wute na fa ak mazhabu Malik moom Cheikhuna Tijaan yi radiyallahu taala anhu wante boo dee ab tiijaan tënku ci cheikh lii dafay daal di nekk sa farata te mooy lan fay shafa ak witr tabarakallahu ndax seen doole ñoom ñaari julli yooyu waaw ni timis mel ci julli bëccëg noonu la shafa ak witar mel ci julli guddi tabarakallahu ndax julli bëccëg yi ñu ngi koy tëje ñetti rakka muy timis julli gudi ñu ngi koy teje tabarakallahu ñetti rakka mudi shafa ak witr amna sax ñu wax ne shafa ak witr ñoy yegal julli yépp ba mu dess dégg nga julli gi nga xamanteni moy salatul wusta salatul wusta mom moy demal bokk ala kulli hal cheikhuna tijaani lii la wax ndax danga koy fay rek yem ca mu ne déedéet wal taqra an jawharat alkamaali talaata maratin li jabrin taali cheikhuna tijaan yi nee na soo fayee shafaak witar bi ba noppi nee na danga cay tofal ñetti jawharatul kamaal waaw jange ko nag dégg nga faat gim la faat ba nga koy fay lii lanu jële ci cheikhuna tijaan yi radiallahu taala moom sharia maanaam diina day defar ba mu baax waaw moom euh, sàgganewul daray sharia waaw sàgganewul daray sharia tabarakallahu même sax euh, ki nga xam ne ñaari rakka yi mu waroon na la gannaaw timis ñaari rakka yi mu waroon na la gannaaw timis xam nga foofu yonent bi sallallahu alayhi wa daf ca wax ca xadis ba wax ju am solo mu di e, naafila gi ngay doxale diggante timis ak gee ngëneel ya ca nekk looloo tax na tiijaan yi ne yow taalibi tiijaan bi ñaari rakka yooyu bum la raw bum la raw dee ko julli daanaka da ko def farata boo jëlee tarixa bi muy ñaari rakka yi nga xamante ni boo sëlmalee timis moom ngay jóg julli ko ñaari rakka yooyu yonent bi def ci diggee ay ngëneel yu rëy rëy rëy rëy Cheikhuna Tijaani nee na bu faate nga xam ne rëcc na la nee na na nga ko dabaatale juróom fukki salaatul fatihi juróom fukki salaatul fatihi nga koy dabaatal dabaatale moom la wax ne fal an fal yaaquutata alfarida فلتقرأ الياقوتة الفريدة خمسين نلت رتبا عديدة gis nga nilta rutaban adida moo dellu ci xadis ba dañuy bañ a guddal waayente xadis bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi xadis bu wér la ci ñaari raka yooyu nga xam ne boo sëlmalee timis rek moom ngay jóg naafila ko Cheikhuna Tidiane yi nee na boo dee taalu bi Tidiane jël tarixa bi su la rawee danga koy fayee juróom fukki salaatul fatihi mu di cinquante salaatul fatihi kon yàlla nañu ko yàlla fayal lii lépp dafay bëgg rek ab taalube maanaam taalube tijaan yiwam ëllëg yowmal xiyaam bu ñu ko peesee mooy ëppale waaye kenn du ko ëppale dama ne taalube tijaan ëllëg yowmal xiyaam buñ ko peeselee ay yiwam ak kuñ ko mën a dendaleen mooy ëppale waaye kenn du ko ëppale tabaarakallaahu bu ñépp jullee dem moom day toog ci lan lay toogee astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaha illa allah tabarakallahu te ku ngeen ku ne xam ne ne ñett yi ñooy daj dëpp gi l'istighfar ah dossier bu mu nekkul ci dossier jullit yi amul leer waaw salaatu ala nabi gis ngeen ko keroog suñu maam aadama sax bi mu bëggee takk sayyidatuna xawa dañ ne ko duñ la ko may lu dul can nga dafa doon nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon julli ci yonent bi noonu la foore kon li yàlla di ànd di ko def ak ñun malaaka yi ànd di ko def ak ñun ci ak jaamu tabaarakallahu mooy julli ci yonent bi waaye yàlla nag julleem ci yonent bi du ak jaamu tabaarakallahu ñun suñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi jaamu la ñaan la ndax ndigal la yàlla nag kenn du ko digal tabaarakallahu kon mu ngi noonu yàlla nañu yàlla fayal Cheikhuna Tijani kon mbokk mi loolu leen lay tontu ci laaj boobule.